awa baaba caam waaw macha allah mhm. waa cat la cat cat la cat moom euh, mook ñun ñoo ànd ah, cat la rek caw li fa mu jugee euh, ñaari xarit lañu moo ku ñu ndeyale ci xew am nga cër ci xew ma donc euh, ay ñaari xarit lañu yu doon ànd ba ñuy xale ba ba toll ni ñu toll sala moo jur Xadija ni ko awa baaba jure la ko sala jure ma xam sala bu baax a baax a baax a baax muy sama xarit sama jigéen ah. di ku ma fonk ma fonk ko loolu bëgg ko ah. limaan jëkkëram di nit ku baax moom di sama xarit waaye sale mooy sama féete ma xam ci moom ay qualité yu bëree bëree bëree bëree bëri mooy seytaane moom xëyul ba dox fu jàmm amul day dem fa jàmm am mu mu mu mu yàq ko tu vois awa baaba it moom mi jur doomam ndeye la ko sala ba mu koy def teraanga rek a tax sala ñëw ci bës ba la ko ca waroon yëpp mu def ko laay la ko waroon ca bës ba yëpp def na ko te def ko fi mu ko war a def seytaane moo ñëw rek waaye sala kenn gënu koo bëgg aw baaba awa baaba it kenn bëgg koo gënu koo bëgg sala la mu fa dépensé ëpp nag cinquante million cinquante millions doo ko jox sa noonu seytaane la rek na nit ñi xam ne ay nit bu ñu ànd na leen war a bàyyi ñu ànd ñu ñu rafetal bàyyi nettali bàyyi wax waxi jàmbur ak soppi ay wax ak yóbbu wax xam nga dafa am loo xam ne bu ñu la ko waxee ci sa nit da lay soge ba boo amul self contrôle rek di nga wax loo xamante ni peut-être euh, woon sa intention waaw mais awa ak sala ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo juddandoo yarandoo màggandoo fii ci Gibraltar ah euh, ànd ànd bu rafet ba tey awa baaba ndey la doomam sala sala nangu cër bi nga ndey la mën nañ la ko jox ba pare nga bañ ko mais le fait que mu nangu ko rek mooy que ne neex na ko te salaama ne ci làmmiñu boppam dama yàgg di wax awa baaba bés bu ñuy takk xadija bu soobee yàlla dinaa toj ndakaaru te toj na ndakaaru donc yàlla nañu seytaane baal rek te bàyyi ñu ah. du jur dara parce que xale yi euh, am nañu ay kilifa coow yàgg na fi chaque jour nga dégg coow coow am Dakar du weesu semaine a ah, du weesu semaine xale yi nañu xam ne seen yoon nekku ci ay coowu mag yoonu gune newu ci ñoom nañu organiser seen sëy yàlla musal leen ci seytaane ah lafal leen cet sàmm leen aar leen yiir leen ba mariage bi ñu tànnante dugg ci benn rëccu bañ ci am quoi yàlla bu ci rëccu am yàlla bu ci rëccu am yàlla yàlla sañ na ko mën na ko yàlla na ko def